gërëm bu baax euh, di gërëm ñëpp di leen sant ci ni ngeen àndeek ñun ci solution info TV euh, ci 30 minutes euh, crono ñi amaat mbégte teewaat fi ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax mi ñu woowee wér tal ak fekke ba mën leen eggee suñuy kàddu jëmeek ci actualité nu ngi koy defee saa su ne di gërëm El moo du Diouf topp Ablaye son yu bu Sanjogu Aïcha Euh, maa jigéen hmm, ak ñëpp ñi fi ne Sanjogu ak euh, chauffeur yi ñoom euh, Ousmane ah ñëpp na yóbbaale ñëpp Ousmane Modou mi ci bunt bi aussi ñu ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di am mbégte nag di jaar tamit sukaa bu baax a baax tey ñu dikkat actualité biir riis na dinañ wax ci mi ak Sonko Barthélemy mi mi ne dafa génn xale yi ne ko papa wala paa bi mu foog ni Jean Paul Dias lañ wax nag te moom la ci la doog xam ni mag la léegi mais doon mag ak màgg du benn maanaam Barthélemy Dias mag la waaye pour man màggul parce que bu màggoon li fi xew yëpp du fi xew beneen bi dina ñëw ci génn cadre passé fi jigéen ñi ak génn Ousmane Sonko ak àtte bi ko àtte ci appel ñi naan dina bokk ak du bokk ak réaction yi mu jur ak yeneen yoo xam ne ñel na actualité bi yeewi askan wi ak yooyu bu ci xajee dinañ ko ci booleeg dialogue bi mais fi ñuy njëkkee rek mooy ci Barthélémy jaas mi ne mag la bi ko xale yi ne paa bi mu nga doon paa sax te doo màgg quoi parce que màgg ci xel la te Barthélémy bari na wax yu mu wax waxu ko màggul la wala bokk màggalu ko wax ji muy doon wax màggalu ko yëkkatiwu ko bu doon ni daa am lu mu ci ut pour gagner ko ci politique moom Barthélemy Diaz li mu ci perte moo ëpp ndaxte boo koy nag ci réseau sociaux yi rek ñi ko doon suivre moom Barthélemy Diaz avant mi dal ci kaw Sonko xoolal ba ñu bari déglootuñ ko ñu bari bàyyeetuñ ko xel pour plusieurs raisons parce aussi làmmiñ du balance waaye ku wax peese sa bopp te tamit di fecc ba génn géew bi wala nga wax ba yeew sa bopp wala nga yeewi sa bopp parce que wax dañ ne boo ko dee def tàllal nga buum da ngay wax ba yeew sa bopp wala nga wax ba yeewi sa bopp mais Barthélemy Diaz dafa wax ba yeew boppam ci lu bari parce que ñun fii suñu réew daa am lu ñu gëm mooy kóllëre gëm ngor gëm ngar mi mais aussi xam lépp bañ a wax lépp parce que loola fi dal ne jàmm fu mu yendu fanaana fa rek nit moo xam lu mu waxul kon mi bu dee am na sañ-sañu wax démocratie la bu dee am na sañ-sañu def bu dee sañ am na sañ-sañu jël position ne ànduma ak Ousmane Sonko ci lii ci loolu dañ ko koy nangul parce que nag Ousmane Sonko du yonent du xutbu doon fi koo xam ne tam ab intouchable la boo xam ne kenn du wax ba tudd ko loolu moom mënta ne parce que liñ dul may Macky Sall duñ ko may keneen fii moom ku fi tëgg ni tama rek. ñu euh, ku fi bindoon itam ñu tëgge la ñaari boor waaye ca tëggin wa la Barthélemy juume parce que ñu bari li leen yéem mooy Barthélemy lan moo tax mu génn question boobu ba léegi même ñi analyser ci politique mënuñu ci tontu mooy Barthélemy Dias li muy wax lan la ci jublu li muy wax lan la quoi lan moo nekk ci ginnaawam parce que aussi Barthélemy mi ñu xamoon 2005 ba tey jii Barthélemy amul lu mu dundul ci nguuru Macky Sall. te pourtant dund na ko avec dignité dund ko avec honneur ci ngor ak ngar mi lan moo changé ci diggante bi ba Barthélemy jaas mi mën a egg ci point bi dem ba ne dialogue maa ngi ko doon dox ñeenti weer waaye dialogue boobule Ousmane Sonko fii Khalifa fii lu ne mu dugg ci man bis bi Macky Sall dalalee Barthélemy na ko dinaa wax sa papa ku mën a liggéey nga ak bi mu ci 4 avril man dama bokk ci ñi toog ci télé bi défendre Barthélemy Dias parce que ci république la ne a nekk maire Dakar 4 avril am kenn gisu la ci wetu président ci ordre protocolaire bi wala ngay organiser dara ci ndakaaru forum international président bi war nga ko yónnee carton invitation mais Barthélemy Diaz man des fois dama naan ci fan la doon waxee ak kan moo doon wax ak lan muy niveau parce que fi ma ko tegoon man man pour être honnête fi ma ko tegoon dafa kawee tellement que ni Barthélemy Diaz daanoo man daf maa xaw a yéem. bu nee woon na Sonko invité ko mais Barthélémy Dias bu dee invité son invité wu ko en tant que leader Pastef ci forum boo xam ne maire yi ñooy daje mais bu koy invité di koy invité en tant que maire de Ziguinchor mais aussi en tant que koo xam ne dafa jiite association des maire de Yewwi kon kooku boo koy invité du téléphone nga koy woo administration elle est écrite da ngay bind ana carton invitation ba. ana courrier ba kon Barthélemy Dias bu doyloo ni woo naa diw ci invitation ci loo xam ne mbiri administration la mbiri liggéey la du affaire politique li mu doon organiser noonu comme même bu dee woon Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo yey sax bañ a dem parce que nag kilifa surtout maire jiite ab association des maire kooku daa am ñoo ko war a invité kon bu dee ni def na carton invitation bi waroon na mën a génne wan ñu ko mais bu doon ni yónnee ne courrier kër Ousmane Sonko waroon na génne wan ñu loolu waaw ah, parce que man pour man li muy incarné personnalité be ngand ngandul bi pour man foofu la waroon jaar mais am na yoo xam ne téléphone du ko lijjanti entre de responsables beneen bi ci topp Barthélémy Dias lu tax ñu bari weddi ko mooy fi mu jaar ak Ousmane Sonko la maa ngi koy wax sax booy di ko TikTok naan yaa xànju ten bi gënoon a fee deey mu root rootaaleel la Sonko root rootaaleel ko lu tax ma doon wax wax jooju xajul woon ca waxtaan woon ko doon waxee mais il faut ma toj ko Barthélemy ak Sonko li leen boole mooy ñaar ñu bokk génération sénégalais yi am ci ñoom yaakaar ne lii c'est un boo xam ne gagnant Sénégal ëllëgam mun na nekk ci loxo ñaar ñi léegi ci ànd boobu ñu gis ni bi weeru mars atum 2021 amee Barthélémy Dias am ci taxawaay ci côté communication parce que ci bis bi dem na toog ci tele yi défendre Sonko fa la doon wax naan fii am na ay leader de l'opposition wala dealer de l'opposition mu défendre Ousmane Sonko bu baax biñ jógee ci loolu moom tam mu am bisam ndaxte bis bu ne bis lay fay Ousmane Sonko tamit ñëw taxaw taxaw Barthélémy bu baax a baax ci biñ koy woo ci mbiri Ndiaga Diouf ak yow min seen Ousmane Sonko woo Pastef fi mobiliser gunge ko ak lépp lu mu ko mënoon jural ci wàllu politik beneen bi ñu fàtte mooy Ousmane Sonko woo na fi Moussa Diop bu ñu bari mere ci Ousmane Sonko ndax Barthélemy mii mooy Moussa Diop mi jikkee woon dem dikk dafa porté Barthélemy ci mbiri diffamation ni Barthélemy da ko duural da ko tuumaal ci mbiri permanence APR beeg yeneen ak yeneen Ousmane Sonko di ci dox ba musaa Diop bàyyi ba bas bal Barthélemy Diaz am ñu ne woon Ousmane Sonko mi ne day changer système bi waroon dugg ci ay dil wala yooyu mais Ousmane Sonko assumer ses responsabilités parce que loolu xarit mooy ki ko jaral mooy Barthélemy Diaz kon Ousmane Sonko def na sacrifice pour Barthélemy Diaz biñ jugee ci loolu listu maire Dakar wax naa ci son Soham Wardini Khalifa Soham rek la bëgg te Soham moo gënoon a sedd ci Khalifa ndaxte Soham amul béjjënu ginnaaw du du la boot di la jam yorul ay béjjénu kanam di la mbëkk di la jam su am moo gën a sedd te moo gën a oyof mais Barthélemy bu nekkee meeru dakaar mais ne ko gërëmee Ousmane Sonko taxawaay boobu waa Pastef fi def forcing ba mu nekk candidat pourtant dàqu jàng Abbas Fall mais ci côté légitimité politique dañuy nangul mi ak jaar-jaaram ak taxawaayam ni war na mën a nekk le maire la dakaar parce que nekk na fi maire moo def fi dara tey ji ñu pousse ko ba mu egg fii bu ñu Barthélémy Dias bëgg fi mel nu kenn melul woon wala moom bëgg fi mel nu ñu xamul woon loolu dañuy jaaxal parce que Barthélémy Dias mii di wax tey jii naan Macky Sall ak euh, dana war a wax daan Ousmane dafa war a def lii Barthélémy Dias bu leen fàtte ni bi xalifa Sall amee dëj Macky Sall dem jaale ji ko Barthélémy Dias mii taxaw na ne xalifa waru koon recevoir parce que li ko teg yépp Barthélémy Dias moo ko wax. koo xam ne nag ci dëj ngay wane sa mer yow dëj dëj xam ne dañ ne lu waay jàppoon na ko ba yow nga téye ci li nga téye ba jàpp ni sax Macky Sall mi doon jaale ji ci di xalifa euh, waru ko woon dem jaale ji ndaxte xalifa waru ko woon resevoir nga amul ci position boobu mu jaaxaloon ñu bari mais ñëpp jàpp ni yow nitu principe nga mais bu nekk de Barthélemy ñun da nga ñu doon nëbb sa bopp qu'est-ce qui a changé entre temps waxuma la Macky Sall mais euh, kii di Amadou sàll mii di doomu Macky Sall xam ne mat na la doom nga mën a egg ak moom ci niveau wu di jokkor maajo jokkor leen ak moom ci yu bari Barthélemy dañuy poser problème mi ñoon mën nañ comprendre un Bamba Fall dem fekki kii di président Macky Sall parce que un Bamba Fall mën nañ wax ni ci côté politique ambition mënul weesu maire doon député wala ministre conseil mais Barthélemy yow tu si présidentiable Barthélémy si ambition dafa jéggi maire yu Dakar wala boog da gaaw a suur léegi yow nga jiñ fi Bamba Fall lu ne Bamba bu nekkul candidat yeeyu Médina Barthélémy am na lu mu ci joué ba kenn amul confiance ci Bamba Fall Bamba Fall fekki Macky lu ne ñu yegg ko ci Bamba Fall dem ba Bamba Fall xaritu kali xalifa mais xalifa gêné wu parce que sa ñaari xarit bu nu jotee yow da ngay gêné wu parce que doo xam fooy taxaw mais léegi yëpp ñu nangu loon ko Barthélémy Dias mës naa def benn cronique ci benn chaine bu mu mës nekk yàgg na ma bindoon de la loyauté de Barthélémy Diaz aux incohérences de Bamba Fall ci rafetlu woon taxawaayu kii di Bamba xalifa Sall ak Barthélémy Diaz ak kóllëre gi parce que jamono ji ñoom Mohamed Dionne ak Marème Faye bu ma juumul dem jaale ji Bamba ci bis bi ñuy àtte xalifa sàll ñu bari métti woon ko ni bis boobu du woon bis bi Bamba Fall ne Macky lebal ngeen ma bor waaye dinaa leen ko fay mi bokk na ci ñi ñaawlu woon doxalinu Bamba Fall bu ñu demee ba bis nag Barthélemy di dox comme Bamba Fall wala mu yées ko mais ñu dañuy am problème Barthélemy Dias da ñoo bett pour être honnête da ñoo bett parce que nag nawloo woon nan sa fulla ak sa fayda ak sa liggéey Barthélemy Dias da nga jóge États-Unis ñëw dugg parte socialiste dem ba bis ñëw Tanor bëgg a teg Xalifa lu dul dëgg nga bàyyi fa Tanor toppi Xalifa tey jii boo bëggee wëlbatikuwaat bëgg ñu wan beneen image ak beneen xar kanam dañuy poser problème waaye nag li nga def yëpp defoo ko sa bopp defoo ko kenn xam koo ko def sa bopp man dama ne xal Barthélemy suicide politique la def wala suicide public parce que pour man dafa taxaw ci penc ñëpp di ko seetaan Barthélemy rey boppam ci politique parce que li mi def jariñu ko tous bu dee meeru dakaar la meeru Dakar bii nga am ko wala nga ñàkk ko mais yow yaa ëpp meeru ndakaaru ndaxte fi la doon xool ñun dafa weesu ndakaaru man te fi ma doon xool Barthélemy weesu na ndakaaru je l'ai toujours défendu mais il m'a déçu mi bu nee dialogue bi moom ko tëgg Barthélemy yaa dox ci dialogue bi ba dialogue bi egg fii mais dama dégg sa chargé de communication mu taxaw Walfadjri mu ne man ànduma ci dialogue te kooku foo pikiroo mun naan fa ay doom yow Barthélemy mooy bi forom bi am taxaw na isaatin taxaw ñu laaj ko mu ne àndul ci dialogue yow sa chargé communication boo xam ne depuis Mermoz Sacré-Cœur fu mu mësa a méttee ci àddina yéen a yéen a ngi ànd kooku ne àndul ci dialogue yow nga génn ay fan na man maa doon dox dialogue bi mais Barthélemy réew mi bu ñu fa doon dox dialogue du la ko doxloo parce que yow. da nga mënoo nekk juge ak parti dialogue ku neutre moo koy joué léegi nag da nga jàppoon ni lii boo ko dóoree mun nga ci gagné politiquement Barthélemy tu as joué tu as perdu parce que boo xoolee ñetti fan yi Barthélemy bi nga xool fi nga tolloon sénégalais ak fi nga nekk actuellement dangay xam ne li nga doon def jaru ko parce que wolof nag dafa ne boo bëggee jooy tooñal ku la mën waaye tamit boo bëggee ku la mere xoolal ki ñëpp bëgg nga def ko noonu bu yàggee say noon bari kon Barthélemy yaakaar bu tas la ci ñu bari te nag indi kersa ci xalifa indi kersa ci Habib Sy ñu bari ñu ngi naan xalifa ak Habib Sy lan lañ doon def ca Macky bay fotoog moom mais est-ce que nekkul dal leen a dóor parce que wolof Njaay nee na bokk ci tool yi xam ko waral lu gën est-ce que nekkul ni dal leen dóor boo booleel ak Macky foto leen génnee ko parce que nag mi sa liggéey rafet na defoo fi lu fi xalifa deful de xalifa laaj na fi emprunt obligataire ñu bañal ko ko. ngir bañal liggéey ci Ndakaaru ca place de l'Indépendance ñu bañal ko ko di bañal xalifa di bañal xalifa ba dugal ko kaso xalifa sàll bi muy dugg kaso ak bi muy génn tey jii dafa mel ni nit ku nu futti ba solatul dara ci politique mënatul nekk chef de nekk dara teraanga ju mu yoroon ci politique Macky Sall nangu na ko ci député maire ak leneen ak leneen kon tey ji xalifa min doon ji ñaay moo nar wëlbatiku nakate mburoog soow bi meew ma du xalifa de Barthélemy mii la te Barthélemy sax moo gën a nduroog meew boo ko dee xool moo gën a nduroog meew lii nag day tax ñu suur suñu nitu politique te nag li dal usmaan sonk ñu bari ne dafa naïf ñu bari ne Ousmane sonk dafa sàggan ndaxte ñi mu àndal bëgguñu ko ak ñooñu Ousmane Sonko li ko dal man mii mën na ma dal mën na dal keneen ak keneen ndaxte wolof Njaay dafa ne yow bu dee da tàmm di wax dëgg da ngay jàpp ni kenn du la fen maanaam boo tàmmee wax dëgg dangay jàpp ni kenn du fen boo bu dee da nga gore yow doo wor dangay jàpp ni kenn du wor looloo tax ñu naan ku dul fen du wor kooku wor ko ak fen ko day yomb te loolu dafa dal usmaan Ousmane ko ci lu bari dal na ko ci Yewwi Askan Wi dal na ko ci Barthélemy dal na ko ci keneen ak keneen Barthélemy mii tey waroon na mën a tey ji dialoguer pour Ousmane Sonko comme li may faral di wax mag am na loo xam ne mënu ko waxal boppam mais ku ko waxal mu jël tey ji mënoon na di dox ci suuf ba ñu bàyyi ñi ci kaso bi mënoon na di dox ci suuf ba li ñuy teg Ousmane Sonko ni bañ mu doon candidat mu dañ bu doon ni bëgg na Ousmane Sonko mais nakare Barthélemy musul bëgg Ousmane Sonko boppam la bëggal utine nag dina tax amin ñaaw utine dina tax amin ñaaw loolu da Ousmane Sonko il faut que ñu nangul ko ni mën na am dafa jàpp woon boppam ni ñi mu àndal te loolu li koy indi mooy man jàpp naa ni Ousmane Sonko fi mu toll ci politique dafa war a am waxuma chargé de communication Pastef de mais moom dafa war a am un chargé de communication un expert en communication bu koy dimbali ci wàllu communication mais aussi mu am un conseil politique comme di ko xalifa amee musa Taye kilifa daam fooy toll lépp doo ko waxal sa bopp mais lépp doo ko doxal sa bopp. parce que nag ci ni Ousmane Sonko jëfleeg waa Yewwi ay erreur am na ci imaginal gox bu doy ne Kër Massar xam ne Pastef moo fa ëpp doole ñu ni la ñetti ñu ni la président présidence conseil départemental bi ak ñaari maire yi ak député ya fa nekk ak yépp ñu ni la benn Bilal Diatta moo ci maire yu Pastef tey ña fa nekk maire yëpp Pastef moo leen fal loolu erreur la woon ñu ne nañ dem géejawaay même bu Ahmed dara nekkee maire mais ana beneen député Pastef bi kenn xamu ko Khadija Mahécor Ngom nan la mën a nekkee maire Golf Sud ba pare ne nekkul député mais loolu day effriter leadership bu Pastef au niveau de géejawaay nga dem tey jii au niveau de Pikine kii di Cheikh Aliou Bey mooy maire Diamaguène deg ci doon député mais mi ngi incarne un leadership li ko may may doon maire doon député kon waa Pastef li leen dal tey daf ci bari ay erreur yoo xam ne defoon nañ ko ci élection locale ak législative te loolu nag li leen ko jural mooy woolu woon seen àndandoo yi nekk ci Yewwi Askan Wi jàpp ni ñoog ñoom ñoo yam jikko fekk yamuñu jikko gars yi ay bukki sàngoo deru bay lan parce que bu leeroon ni Ousmane Sonko Barthélemy fii lay mujj Abbas Fall lañuy jox maire bi wala kii di Barthélemy Dia Ousmane Sonko nekk candidat à Dakar mais ñoom jàppoon nañ ni ñoom nu ñu mel noonu la Barthélémy Dias mel waaye li may faral di wax ut kat amul jikko beneen mooy erreur stratégique ci wàllu politique dangay gis yenn saa yi waa Pastef fi les cadres génn ñu ne xale yi génn leen xeex waroon leen seetaan ku leen faagaagal waroon leen seetaan ku leen fitnaal waroon leen seetaan lii ak lee di nga dama lay wax benn affaire. askanu Sénégal bi fi nekkoon 2012 moo fi nekk ba tey jii waaye leader yi fi nekkoon 2012 ñoo fi nekkatul parce que nit ñi pour ñu génn xeexal la wala ñu génn taxawal la parce que nag nguur ñaar rek la ragal mooy sëriñ bu bari xam-xam am baatin ak politicien bu am mbooloo te ñemee defante nguur moom ñemewul rapport de force parce que borom baatu wurus du xeex a borom baatu neen. Pastef lañ jàppoon ba mel nii dañ ko bàyyi te foofu la ko indi mooy seetaan bi moo bari sur le plan politique seen stratégie dafa des trois cent et quelques personnes ñu jàpp leen déggoo ku yëngatu déggoo ku wax déggoo ku ne déet déggoo ku organiser manifestation na ñii nañu génn bu xëyee ñu buñ xëyee nañu jàpp Bassirou Diomaye Faye buñ ko jàppee kenn du yëngatu te loolu li koy dëggal mooy Bassirou Diomaye Faye impôt et domaine lañ ko fekk jàpp ko bi ñu koy jàpp di ko yóbbu moom Diomaye presque bëccëg bi ba guddi gisoo fa cinquante personnes yu taxaw Diomaye te Diomaye deful woon lu tax mu war a toog ci kaso ba heure bii mais waa Pastef lan lañ def pour Diomaye génn beneen bi ci topp fajulu Keita lan la def ba mu mérité nekk ci kaso bi actuellement ñoom Hannibal Djim ñoom nit def keneen ak keneen ba nu mat ay trois cent mais boo xoolee les têtes de pont de Pastef nguur gi danoo am stratégie mooy dañ ne am manifestation pour mu am wala ab yëngu-yëngu pour mu am il faut que mu am ñu ko jiite parce que nag ab askan duñ xëy rek jugandoo de mais ña war a jiite la nguur gi dagg seen bopp dóor leen ci kaso bi léegi pour ñu kan mooy mobiliser les jeunes dans les quartiers et dans les communes ñi ko waroon def ñu ngi ci kaso bi. loolu dañu fi gën di wax yëpp des fois da ngay xam ne ñii peut-être danoo desee am maturité ci wàllu politique mais nguur gi stratégie yu nguur gi des ay stratégie la yoo xam ne dafa dal ci Pastef bu nee la Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci kaso bi ñu ne la Fadilou Keita mi ngi ci kaso bi ñu la Aline Badara jàppoon nañ ko Babacar Ndiaye Pastef Mouhamed Bilal Touré maire Kër Massar ñu ni la Kaba Diakité jàpp nañ ko Madiaw Diop coordonnateur Tivaouane Abdou Karim Bey Baba Diaw Bintu Samb usmaan Souare ak ñeneen ak ñeneen bu ñu doon lim tey du jeex ba ci Baba Thiam Thomas Sankari Faye Abdoul Aziz baax chargé de com Pastef Kër Massar Abdoulaye Sow coordonnateur Pastef Kédougou ngay lim tey liste du jeex ba ci ay Hannibal Djim ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tey ji na nu nekk ci ak ak ñeneen ñoo xam ne jàppoon na leen bàyyi na leen bu doon lim tey liste bi du jeex ñooñ ñëpp kan lañ ci jàpp ñu ne waa Pastef yi organiser na manifestation ngir ñu bàyyi ñooñu wala def nañ jéego bi pour ñu bàyyi ñooñu mais Macky bu dee ni jàpp na Diomaye jàpp Fadilou jàpp ki ni gisul dara xew mais danaan lii nooy na fa ma dugaloon sama loxo dama ko fay delloo pour man taxawaayu Pastef ci côté boobu dafa des sur le plan politique parce que nag bu ñu xalaatee ne ñoom yoon moo leen di setal bu ñu xalaatee ni yoon mooy tax ñoom ñu génn ci kaso bi bu xalaatee ne ñoom dañ leen di baal wala ñu yëgal leen ñu ngi nax seen bopp politique nag du nekk ci mbedd mi di xeex wala ngay reyante mais politique daf ci am loo xam ne la Abdoulaye waat doon wax mooy yenn saay bul xuus ba nuuru mais yenn saay da ngay tefesu mais tefesu boobu xamul lu koy indi. daf ci am loo xam ne il faut que waa Pastef yi gëm ko mooy ut ay pexe pour seen gars yi génn ci kaso bi mais heure bu ne Pastef génn nan mooy Ousmane Sonko la mais gars yi bu ñu demee ba naan loolu xam nga ñuy def dan naan Ousmane Sonko ñun mënuñu ko jàpp mais dañ koy isolé teg ko dóor ko fële mais nan fexe ba képp koo xam ne daa nga mobiliser les jeunes dans les quartiers yi dans les communes ñu fexe ba teg la loxo ak loo mën a def ak lu la mën a tuumaal mais nan la denc en parce que kaso. boo fa duggee dañ lay lijjanti mais mënatoo lijjanti sa bopp kon stratégie boobu nguur gi teg contre Pastef dafa dal moo jur lii tey parce que nag bu dee ni danoo joxe verdict six mois ñu ne verdict boo xam ne mun na teel Ousmane Sonko bokk ci élection ñu xëy xat damul ci koo xam ne ci mbiri 94 milliards boobu sax yaakaar bi demewul woon nii taxawaay bi amoon ci mbiri Mamour Diallo 94 milliards ak tey ji amul woon ci mbiri Adji saar lañu jiñ Ousmane Sonko moo gën a garaaw foofu mais lan moo tax ba tey jii muy doxi soxlaam mooy taxawaay taxawaay boobu tey jii nguur gi da ci am pexe tollal nag li ko indi mooy waa Pastef yi du ma ne Ousmane Sonko dafa am benn nattu bu nu am mooy lépp luñ bëgg a def dañ koy wax ba ñëpp xam ko te dama doon dégg benn paanaan nit ku ñuul loo ko bëgg a def boo ko waxee doo ko def ndax day dem waajal boppam da ngay dégg ku ni la joxe nañu liste waa APR yi joxe nañu ministre ay chroniqueur quoi. ay joxe na lu misili mais aussi ay cocktail molotov crêpe ko di itu man mii xaw ma la mooy a tof xaw ma ko <laughs> wallaay lazim mais imaginel yow nga ne da ngay xeex nguur gi nga naa yi nga war a xeex nguur gi loolu nga wax de nga toog ci ab chronique wala nga toog ci ab télé wala rajo di wax ni lii lay defal nguur gi te nguur gi yor armée <laughs> nguur gi yor justice nguur gi yor police nguur gi yor gendarmerie nga ni leen lii laa leen bëgg a def doo leen ko def xanaa nag état bi yambaru yambaru gu ñuy li leen bëgg a def ñu wax leen ko ñu xam fa la gaa yi jëm ba pare ñu leen di bàyyi ñu koy def kon li leen yàq bokk na ci li leen Ousmane tere woon mettre leen réseaux sociaux ak ñoom it seen korog wax na leen ko mooy wax ju bari ji loolu aussi bokk na ci li xaw a néewal doole Pastef parce que lépp luñ bëgg a def dañ koy wax ba ñëpp xam fi ñu jëm te wolof nee na bu ñu xamee foo jëm doo yegg kon tey jii ñu wax ko te de nguur gi jekku na leen. te boo xoolee ñun tasee Yewwi Askan Wi ak taxawaayu Barthélemy mais ak ñi nu téye ci kaso bi te mënuñu leen a génnee man mos naa ko wax benn responsable Pastef bi ñu jàppee Pape Alé Niang tey jii moom ma nga ca kaso ba ma ni ko jàpp noonu Pape Alé yéen ñii lañ ciy teg nguur gi day lam bu nooyee rek mu kon ne di def ma ni ko mënuñu kun tëj ci kaso bi rek ngeen ni justice contrôle judiciaire ma ko bu yàggee ñëpp la ñuy tëj ci kaso bi te bu leen tëjee ci kaso bi yéen ñëpp Ousmane Sonko du amati ku ko taxaw ci politique tey ji est-ce que egguñu foofu est-ce que egguñu foofu mais aussi ci côté communication Ousmane Sonko dama koy ñaan bu mënee am chargé de communication boppam un expert moo ko waxuma un politique parce que y une communication de crise ak une communication politique daa am ñu ci am xam-xam na leen teg ci wetam man waxuma un politicien de wala chargé de com wala koo xam ne day conseil politique la comme ni ko xalifa amee Karim am ko keneen ak am am ko da soxla. pour stratégie politique parce que nag côté boobu la leen Macky Sall xawee dominé parce que Macky maam mooy président mais ay Mahmoud Saleh ay troskis ñoo xam ne caay-caayu politique parce que politique il faut nga nekk caay-caay moom moo jur tey jii li am yépp waaye Yewwi Askan Wi nag wax ji ñuy wax naan demoon nañ dikk doon danoo photo pour man dañuy yokk seen sàggoon wolof Njaay nee na qui s'explique s'accuse mi Sonko di Barthélemy di waa Yewwi pour man lu wax ji gën a bari jamono yi seen i faay di gën di feeñ parce que fi ñu toll la te li leen ko indil la Sadio gu doon wax ci émission bi mu doon def ci rajo bi wa wax jooju mooy stratégie kenn du ko wax ci rajo maanaam stratégie kenn du wax ci rajo dama daan dégg wax boobu waaye loolu aussi dafa mel ni moo leen daaneel maanaam lépp lu ñu bëgg a def dañ koy wax moo tax li ñuy bëgg duñ ko ci egg. léegi nag ñu ne F24 pour man F24 ñu ci woon egg mars lan moo tax kilifa diine yi génn mars 2021 ci mbiri Adji saar lan moo tax xale yi génnoon lan moo tax ñi nekkoon ci kaso bi lan leen doon jiiñ moo gën a garaaw foofu liñ jiiñ 300 personnes ci kaso bi pourtant ñoo ñëpp génn nañ mooy dafa amoon un mouvement boo xam ne keroog Aïda Mbodj wax na ko jërëjëf Aïda mooy m 2 waru woon tas ji nga m 2 moo waroon nekk M23 bu 2011 pour mais pour man f vingt mieux vaut tard que jamais mais c' est trop tard parce que dynamique bi ñu nekkoon en deux mille vingt et un boobu waru woon taxaw mais danoo dem ba ci benn jamono ñu temp taxaw créé nañ fi m 2 vingt F24 créé Ousmane Sonko mi ngi woon jot na waa jot na war ko tey ji Yewwi F24 léegi la Yoro Ndiaye doon wax kan laa war a wóolu Ousmane kan la war a wóolu. kon tey jii bu dee ni dialogue mooy may Ousmane Sonko bu ko leeree ni xeex mënatu ko may mais dialogue bu jaree ñu bàyyi nitam yi ci kaso bi pour man nu mu mën a def ba waxtaan ba pour ñu bàyyi ñii c'est important Ousmane nekk candidat ak lu mën a xew mais ñi ci kaso bi dañoo am njaboot te gis naa ci ñoo xam ne ay innocent la xamuñu sax lu xew bëgg Ousmane Sonko rek moo leen yóbbee li nekkee pour man taxawu usmaan Sonko ngir mu doon candidat baax na mais aussi taxaw ba ñi nekk ci kaso bi génn tamit baax na parce que aussi soit dañ koy waxtaane soit ñu jaar beneen yoon mais mënuñu ko ne di leen bàyyi ci kaso bi rek kon bu dee waxtaan koy lijjanti sukk du tey yóbbaale say oom te Ousmane dem waxtaan ak Sonko du tax xale yi bàyyi la man loolu laa gëm te wax naa la kuy li yàlla def ci yow def na ko garabu penc nga law bi du la gis balay gor. mais daf ci am loo xam ne boo ko waree def pour libérer sa nit yi def ko li la sa candidature jaral na la ko libération jeunes jaral léegi nag la yoon ba ngay jaar yaa ko xam taxawaay ba ngay jaar yaa ko xam mais bëgg naa nga ut conseil communication boo xam ne ci wàllu politique mais aussi nga am ay conseil ci wàllu politique baax na communication baax na waaye wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy mu ne danga maa wax te jotul wala nan ma waxee du noonu wala dan maa waxee fan ma warul waxee kon waa Ngor ñu ngi leen di bàyyi xel ab gendarmerie lañ wax président Macky Sall médecin après la mort Assane Gueye jàkkaarloo nag mu waxu ci waxu ci ci korité ñu dem ba ay bakkan jot mu woo leen pour ñu waxtaan mu ngi noonu kon di ñaanal ñëpp jàmm dañ ne gendarmerie lañ fa bëgg tabax pour kaaraange waa Ngor waaye bu dee ni kaaraanga waa Ngor moo leen tax a jug est ce que tabax gendarmerie ngir kaaraanga jar na fat ay bakkan kon mi ngi noonu El Hadji Modou Diouf tey moom danoo xaw kii ñu yamale ko fii rek di gërëm Modou ñëpp ak waa solution di leen jaajëfal di nuyu Sandiogou ak euh, ñoom sony bu Cheikh Bara Ndiaye ñi koy ñaanal mu yàgg fi te wér di gërëm ñëpp di leen euh, sant ñoom Daouda ah, borom Côte d'Ivoire ñëpp ñoom seexu naa <laughs> di gërëm ñëpp di leen sant Omar bun Xattaab Gueye moo doon at bi jégalu ñëpp bu dee juum naa ba beneen yoon incha allah.